man li ma ñaan yàlla kenn nee na gàmmu gi liñ ci def maa koy def maa ngi ñaan yàlla oto bii bi ngeen ko defee man koy def maa ngi ñaan yàlla mbooloo mii yéen ma tànn ku nekk am oto ngeen di gaalu fii bu gàmmu jotee te moo maa toog rek da leen bu mu ngeen man li ma bu mu ngeen jàmbaar bu ngeen am fit danaa tey di wax yàlla ba ñett di sox du ma nopp du ma sonn feebar ma dara jotuma waaye nit dafa wax ni doylu bu tiimee bagaam lekk ba suur bu mu toppal ndox la ba ne dina ko ñii ba nga ko ñii moo tax ma jox leen pour ngeen ñii baax dara jotuma dara jotuma ma wax leen ne dama kontaan ci ni ngeen mel rek te loolu sant yàlla ndax yëg naa ne mën na leen wàcc suma yoon moom foo mën a demee tam da nga dem su ma dee itam da ngeen ko da ngeen ko wax te loolu du fay du fay wax affaire bi boobu noonu du fay kenn mënu koo fay maa la wax loolu ah, yéen ñi nga xam ne tey li ma wax ni baati damay wax ci waxtaan bi dëgg rek ñuy dem ñuy ak morom li ma wax dëgg loolu itam baax la alaaji ana alaaji ñam yéen ñii nga xam ne yéen laa tànn ren ngeen di ko sigal yéen ñeent ñii ku leen juróomeel yéen a ko yaatal dama bëgg ngeen di tudd yàlla ku ñàkk ñu war laaj mu dox xam mu ne yéen ñeent ñi laa bëgg ngeen di ci nga taawal yii ku ñëw yokku jaar yéen ci nga gan yi nga xam ñi nga xam ne ñoom ngeen di yokk bu soobee yàlla bu mu nekk ci ni ma leen ko waxee ngeen dégg ko comme la ma waxoon Babou Diassé kalaango boo xam ne dana ñëw waaye buy war du ci jot buy war du ci jot ndax warkat day wee dañ koy war li ñuy war muy ñëw kuy war mën du jàng waaw ngeen góorgóorlu bu baax boobu leen ko bàyyi comme ni nga maa yi laa jàpp ne mooy suma sëriñ man yéen laa jàpp ne yéen suma siibarkat lu dégg ko at mu ne boo fi nee boo fi man loolu am waaw at mu ne boo fi nee boo fi ñëw man loolu am yéen ñeenti ñun daraa ko bu nekk mën na leen fekk kuy liggéeyal ndox nag day muñ ndax ndox kenn xamul noo koy def ndax du rus du ragal kuy liggéeyal wayu du ragal. kuy liggéeyal wëlewu doo perte ndax kenn xamul lan lañ doo bàyyi yàlla rek nañu liggéey buñ ko defee baax na te ñett yooyu rek laa moom la yàlla def ñett rek moom tey mu gërëm na leen ndax xamu leen kañ ngeen àndal te loolu mooy affaire boobu ngeen di def lépp lu ngeen di def te suma jaar bi ne suma gannaaw taamu leen maa yi yëgal leen ko ko bu ne baleen baleen bu ne dof leen dof leen li tax loolu jikkoom laa dooroo góom naa bu gën a jaamu yàlla yi xeme la ñokk woon kenn man bàyyi ma jur loolu tax ma ànd ak moom bés bu ma ko waroon ma ko ndax dañuy ci def wala léegi ñu nga jàpp naa la su boobaa rek su ma sotti la waaye dama war a jël man dégg nga lu ma leen doon sukkand lu ma leen baax lu ma leen suñu lu ma leen baax du ma leen ñaanal gàtt ba waaye du ma leen ñaanal gudd ba du ma leen ñaanal xam waaye du ma leen ñaanal loolu ñëpp war nañoo xam loolu xam-xam nag yéen laa ko bëgg ngeen xam ko bu nekk na tàll lu bëgg lu bëree bëri bëri bëri fu mu mën a toll boo gëmee ne man yàlla dab na. góoboo kenn lu mooy li nga li may tàggu. mais bu gën a lii duul dana ma koy jox. lii daal di wax foofu mën na ma jàpp. bu fekkee ne nga tiit bu xam ne man loolu naa la ko damaa la ci mën a génne. nee baa bi du génne nga ci biir. loolu ñoo ko xam ne. mën naa ko ci baax mën naa ko ci baax. doomi examen yàlla ma sama doomi examen day am ni sama doomi examen day am ni yàlla ku des fan wi yàlla ku des fan yàlla ku des fan may la wér di ñëpp di fa may yóbbu la màkka jaral la góorgóorlu bu baax a baax a baax ngeen jàppante li ma la nuyu tegal ci loolu seen ndey yi ak seen baay yi dana leen dimbale du ngeen xam dox leen teral lay bu ñu téye buñ mar ku ci wax te bu ko weddi te bu ko jéem a xamal ndax sa ndaay sa baaykat ba indi la ñoo xamoo ba indi te doo man ba illaa yow indi kon léegi fi indi muy siraatul mustaqiim moom mooy yoon mi nga xam ne moo jógee ci yàlla jëm ci yàlla foofu jaar fa nga jaaree booy wéññoo ko foofu ngaa jaaral kon bu bu leen fonk seen waajur yi bu leen fonk seen doom yi ak seen seen ndey da ngeen bokk seen moromi baay ak seen moromi ndey ku leen jaay bu leen ko jox bu leen ko defal waaye ku gëm yàlla boo ko xamee ci tooñ jox ko ñëpp xam nañ ko gëm yàlla lu leen di dimbale ko ñàkk da leen dimbale ku gëm yàlla ku gëm yàlla du leen jël bëri ngeen di leen dimbale kooku na leen bàyyi xel ñu ñëw doole dana leen dox loolu dana leen bàyyi kat ñu ñëw dox li euh, maa ngi laaj nag Ada Yassir ndax gis ngeen ko dégg ma bëgg ngeen ma Ada Yaay yónnante bi bi moo ko moom. nangu leen bu leen ñëw nangu leen ko amu leen bu leen ñëw. mbay bi de leen ko. nangu leen jël leen jël leen mbaxana mbaxana yi. dégg nga yi dégg ngeen li ma la wax. waaw li ñu doon aatee leen <coughs> <coughs> <coughs> bu bëgg a jëriñu nag defal boo amee defal buñ doxal lu lu rëcc buñ doxal lu laay wax loo mën defal bul xeex bul naw jël leen lépp lu nga xam na leen ko jox ak yàlla yàlla na leen dox loolu donc li ngeen def ngeen góorgóorlu bu baax naata yi di ñëw naata yi ñëw parce que comme yónnante bi rek ngeen ko te yónnante bi laaj na dox leen ko comme kooku woon yàlla yónnante bi rek laaj ko ku gëm yàlla nag du du yàlla rek laaj ko te ku gëm yàlla rek xam nga lii war la kon ku bëgg yonent yow taamu yàlla nga bu la yàlla gërëmee yow nga nekk ab yonent waaye boo ko jaamoo te gërëmul la doo nekk yonent moo tax ñu nañ gëm yonent bi di saay gëm yàlla ci baax jàpp leen ci te jëf ko li tax ma koy def dafa bëgg ngeen dundal yonent bi ndax ngeen dund ndax pour dundul bu ñu naan ko yonent bu kooku yàlla la koo gis mu dee rek yàlla ko garab bii yàlla la suuf si mooy yàlla yooyu yëpp dee yi ngeen di wax dee na yëpp loolu mooy yàlla lii dund yëpp yonent la jox leen ci yonent bi moom mi nga xam ne mooy dund mën a dundal kenn ku ne la ma am na ko joxe du leen joxe malaan nag soxla moo malaan xaalis rek ku ñu bëgg xaalis xaalis ngaa joxe fii yomb na ramle jeex na ci Sénégal alors rek moom it moom lay soxla kon ku bëgg a xamalal na joxe xalal xaalis mooy xalal na ku joxe yaa ko wala